الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين أما بعد mbokk jullit yi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gannaaw bu nu sante sunu boroom subhanahu wa taala noo ngi delsi di àndaat ak yéen ci jataayu tafsir bi ñu baaxoo di amal àllarba ju nekk ci waxtu wi tey ji ñu war a dugg saar wi ñuy wax suuratu nuur saar la woo xam ne sunu boroom subhanahu wa taala mi ngi ko wàcce Madina Madina la wàcc juróom benn fukki laaya ak ñeent sunu borom subhanahu wa taala di ci leeral ay atte yoo xam ne doonul lu jullit war a réere ay atte yoo xam ne ab jullit waru koo réere ay teggiin yoo xam ne kenn ku nekk da ko war a dund loolu mooy tax nu mën a am dëkk boo xam ne day set lool dëkk boo xam ne day dëppoo lool ak ni ko suñ boroom yàlla bëgge أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم sunu borom subhanahu wa taala saar wi mi ngi ko ubbee ci baat bi di suura suura li muy tekki mooy almanzilatu sharifa alam ta alam tara anna allaha aataaka suratan waykat ba am na kum doon tagg naan ko xanaa gisoo ne yàlla jox na la tolluwaay bu kawe loolu mooy suura suura aw saar mi ngi nii dañoo dagg mubtadama haadihi suura lii aw saar la lii aw saar la anzalnaaha noo ko wàcce nun yàlla noo wàcce saar wii wala ñu ne suura mubtada la du xabar de ñi ne mubtada la day am ñu taxaw ci seen kanam di leen diingat ne leen mubtada su dee su doonee nakira kenn du ci tàmbulee alfiya nee na wala yajuuzu libtidaa bi nakira maa lam tufidka inda zaydin namira borom alfiya nee na kenn du tàmbulee ci nakira su doonee mubtada ñooña mooy ña wax ne mubtada la ne waaw mubtada mi nga xam ne dañuy bañ muy tàmbali ay wax mooy mubtada moo xam ne nekkul mu mu xassasa waaye bu dee mubtada moo xam ne dañ koo taxsiis su boobaa dana dagan ñu tàmbalee ci gis nga ci alquran wala abdu mu'min xabar ja mooy xayr ndax abdu ji ci boppam dañ ko wutal sifa mooy mu'min ji wala abdu mu'min loolu itam moom la ñuy wax fii ci anzalnaha jumla ci ginnaaw nakira naat lay doon jumla ci ginnaaw nakira naat la mu ngi mel ne wattaqu yawman turjauna fihi ila allah turjauna jumla la ju ñëw ci ginnaaw yawma loolu moo tax mu nekk naat su ko defee kon mubtada la moo xam ne xabar ja mooy azaniyatu saar la woo xam ne anzalnaha anzalnaha nun yàlla noo ko wàcce wa faradnaaha waaye itam noo ko farataal lépp lu ci nekk ci ay atte nun yàlla noo ko farataal wala ku mel ne ibnu kathir da jàng wa faradnaaha nga xam ne mooy noo ko dagg-daggee alquran xam ngeen ne ni mu wàccee du lépp a ñëwandoo day wàcci indi ñaari laaya wala ñetti laaya boo lëgee mu indi ñeent boo lëgee mu indi benn léeg-léeg sax mu far indi benn baat dégg nga wala sax ñetti baat maa ngi juum ñetti baat jibril mas naa ñëw fii indi fi ñetti baat loolu moo lay xam rëyaayu alquran xayra uli darari mas naa tax jibril jóge asamaan ñëw wàcc ko dellu jullit ñi day bu fekkoon ne xam nañ dëgg-dëgg seen bopp danañ xam ne ñoom yàlla fonk na lool ndax jullit ñoo xam ne la ñuy jaamoo yàlla yàllaa ko wàcc sëñ bi loolu lu rëy la li ngay jaamoo yàlla leer la goo xam ne yàllaa ko wàcce di ay waxi boppam nga di ko dundu di jëfe la ca nekk di bàyyi la muy tere loolu mooy tax sax yow sa nite mën a leer ndax nit koo gis mu am bopp am ay tànk am ay yoxo nit la waaye nite mooy yombut nite nag yàlla mooy niteel lim wàcce mooy niteel alxuraan mii di ak leer bàyyi ko ci yàlla xam ko di ko jëfe mooy tax nga nite mooy tax nga nite su borom nee na aw saara ngi nii woo xam ne anzalnaaha wàcce nañ ko wa faradnaaha waaye li ci nekk ci ay farata yépp noo ko farataal wa anzalna fiiha nu wàcce ci biir saar wi ayaat ay laaya yoo xam ne bayyinaat yu leer naññ la ay laaya yu leer naññ du ay laaya du ay laaya yoo xam daal lënt wala laaya yoo xam ne daa lëndëm ay ayaat bayyinaat lana tax laallakum tadakkaruuna ndaxte lee ngeen mën a fàttaliku te su ngeen fàttalikoo da ngeen mën a jaar ci aw yoon kiy fàttaliku nag mooy koo xam ne am na melo wu ñuy wax inaabatu nekk ci moom wa maa yatadakkaru illa man yuniiba mbokk yi sunu borom subhaanahu wa taala nee na saara ngi nii woo xam ne wàcce naa ko waaw yeneen saar yi da koo wàcce wuta aha kay yeneen saar yi baqara tàmbaleel fatiha ba kero ngay agsi minal jinnati wan naas yooyu yëpp mooy ki ko wàcce ndax yàlla ci boppam moo ko wàcceel boppam daa yónni jibril mu wàcce ko léeg-léeg sunu borom yàlla wàcce gi ci boppam la koy wéer léeg-léeg wàcce gi mu wéer ko ci kan jibril léeg-léeg mu ne qul nazzalahu ruuxul qudus léeg-léeg mu ne jibril moo ko wàcce lu tax ndaxte jibril amul sañ-sañub ñëw di indi jenn laaya di ko jëlee lawhul mahfuz wala indi wenn saar di ko jëlee lawhul mahfuz te amu ci ndigalul yàlla kon bu suñ borom yàlla subhanahu wa taala waxee ne nun yàlla noo ko wàcce ak bu ne jibril la ko wàcce benn la jibril la ko wàcce ci sa ndigal mi ngi mel ne bam naan fa ida qara'naahu fattabi qur'ana fa ida qara'ahu jibrilu alayka su ko jibril jàngee nga dégg lim jàng nim ko jànge jànge ko noona fattabi qur'ana mooy ni nga xamee ne noon la ko doon jànge jànge ko noona alquran ni ko jibril jàngale woon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi jëlee ko noona noonu la ko jàngale saxaaba yi ñoom itam ñu jàngalee ko seeni donga noona moo tax alquran am jànginu boppam woo xam ne moom donga ko am bu doon ci làkku arab danga naan làkk wi moom laajutoon lii waaye bu dee alquranul karim moom daa am njàngiinu boppam woo xam ne jibril noonu la ko jànge yonte yàlla muhammad déggee ko noona jàngalee ko noona bu dee dañuy xëcc na tolluwaayu xëcc ga di toll bu dee day gudd bu dee day gàtt bu dee day digg doomu loolu lépp daa bokk ci li wàccaale moo tax ka doon jàng ci kenn ca saxaaba ya ne innama sadaqaatu lil fuqaraai wal masakin mu téye ko ne ko lil fuqaraai wal masakin ne ko hakada naqaltuhu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mana xëcc gi daa am nu ma ko jëlee woon su ma déggee keneen ko ko xëcce nu tollut noona daa la koy leeral alxuraan képp moo am njànginu boppam boo xam ne si ka nekk Misra ka nekk Sénégal ak ka nekk Inde ak gisoo musaabax dawle yi nga xam ne moom la ñuy taxawal nga ne fu ne la nit di bàyyi ko waaye bu ñëwee ñoom ñëpp dañoo tënku ci niñ koy jàngee moo tax lañ na ba ñu woowee lañ na taxkiim ñoom duñ am jafe-jafe ci buntu boobu noonu ndax xale yi ñëw ñëpp tënku nañ ci ni nga xamee ne noonu la ñu war a jàngee alquranul karim kon anzalnaaha nun yàlla noo ko wàcce wa faradnaaha noo ko farataal wa anzalna fiha ayatin bayinat laallakum tadhakkarun borom bi tekki ne azzaniyatu wazzani fajlidu kulla waxidin minhuma mi'ata jalda ki nga xam ne daa njaaloo tey jigéen azzaniyatu ki nga xam ne daa njaaloo tey jigéen wa zaani ak ki nga xam ne daa njaaloo tey góor ah loo ci santaane yow yàlla mu ne fajli du na ngeen duma na ngeen bantal kulla waxidin minhuma kenn kenn ku ne ci ñoom ñaar njaalokat bu jigéen bi ak njaalokat bu góor bi na ngeen leen bantal ñoom ñaar ñaata want mu ne mi ata jalda téeméeri yar kenn ku ci nekk nañ la dóor téeméeri yari yoon yar yoo xam ne yoonay santaane ñu dóor la ko moo tax wolof day wax yari yoon borom bi fii daa jiital azaniyatu ñu ne waaw lu tax yàlla jiital njaalokat bu jigéen bi mujje njaalokat bu jigéen bi bu góor bi ñu ne waaw ndaxte xel man naa wax ne ndegam moom daa am ku ñëw séq ak moom kon yoonam nekku ca ke séq ak moom kay kooka lañu war a dóor borom mi ne aha kay moom moomu ñu séqal itam azzaaniyatu wazzaani fajlidu kulla waxidin minhuma mi'ata jalda am ñu ne li waral sunu borom yàlla di jiital azaniyatu ndaxte li ci gën a bari moom jigéen bu nanguwut njaalo do am kon saa bu njaaloo am rek xamal ne jigéen ja nangu na jigéen ja nangu na ku njaaloo ak moom loolu moo tax njaaloo ko am buñ demee nag ci wàllu ak càcc borom bi sàcc bu góor la jiital door a indi sàcc bu jigéen ndax lu néew ngay dégg ñan bi ci guddi ab sàcc bu jigéen dafay ñëwoon wa saariqu wa saariqatu faqta'u aydiyahuma foofa yàlla daa jiital sàcc bu góor donte sàcc bu jigéen ma naam waaye ñi nga xam ne ay sàcc lañ dëgg dëgg dëgg li ci bëree bëree bëri mbooloo lay doon moo xam ne mbooloom góor lay doon waaye mbooloo moo xam ne mbooloom jigéen ñuy sàcc moom loolu bëriwul lu muy am sàcc bu jigéen dama naam waaye li ci gën a bëri ak ak càcc moom lim laaj ci aw fit laaj ko ci ak dëgër li ci gën a bëri góor a koy def waaye itam jëmmi njaaloo ci boppam wala yaasu billahi taala li ci gën a bëri bu jigéen nanguwut xanaa nga faat ko rek wala nga ga ko ga mooy nga forcé ko te bu forcé amee sax daanaka yow daanaka moom nga bàyyi woon ko ñooy bokk benn at borom bi nee na njaalookat bu jigéen ak njaalookat bu góor na ngeen leen ma dumaal ñoom ñaar lu toll ci ñaata yar téeméeri yar kañ su dee ne njaalookat bu góor bi ak njaalookat bu jigéen bi ñoom ñaar kenn sañewuwul ci ñoom bu dee góor gi amul soxna bu dee jigéen ji amul boroom kër wala amul jëkkër loo ci wax baax na dégg nga kon bu dee ne ki njaalo day jigéen te amul jëkkër wala ki njaalo day góor te amul soxna foofa la yàlla santaane ñu dóor leen téeméer yar kenn ku ci nekk nag la wax waxut ñu boole leen téeméer yar dane kulla waaxidin minhuma la wax kenn ku nekk ci ñoom ñaar nañ la dóor téeméer yar njaaloo mu kallaf moo xam ne am na xel am nam xel ta kamiy séqal pas-pas amu fa du dañoo fas sëy ba te jaawalewu ko itam nag muy tudd nikaaxu suba du daa dugg ci néeg soxnaam fekk soxnaam daa am gan gu jigéen te moom yëgu ko mu dem séq ak moom defee ne soxnaam la loolu nikaaxu suba la sëy boobu la ñu wooye nikaaxu suba foofu am lënt dafaa nekk moo tax moo tax lislaam bu ñëwee du duma waaji ndax dañaan alxududu tudra'u bi subuhaat maanaa gëtën bu fekkee am lënt nekk na fa rek suba ay yari yoon du mën a ñëw te itam jamono bi nga xamee ne mi ngi séq ak moom pas-pas nekku fa moo tax léeg-léeg ngay dégg ñu naan ñaar ñoo xam ne ñeen maye woon ñu bokk daje ci benn barab xamuñu ne ñoom ñii maye nañ leen ñu dox seen daal waa ji daal bi muy séq moom daa jàpp ne kii ab jaamur bu jigéen la ba séq ak moom léeg-léeg nga dégg ñuy laaj loolu maanaam ban àtte la yor loolu du nekk njaaloo ndax pas-pas maa nga fa dañ koo xamul rek waaye pas-pas maa nga fa waaye nag danañ am bàkkaaru def njaalo ndax yéene jooju lañ amoon moo tax yéene jooju lañ amoon waaye nag du tax yoon di leen dóor ndaxte ab pas-pas maa nga fa man a njaalo buy am pas-pas dafa du nekk bakkan bii dafa am ay bànneexi boppam dégg nga saytaane itam am liggéey bopp boppam boo xam ne boo xamee ne nit ki moytuwul bakkanam te itam yoon yi koy mën a yóbbu ci njaalo yépp moytuwu ko day yomb lool saytaane tàbbal ko ci biir njaalo bu leen fàtte ne waxambaane woo xam ne daa toll ci digg doole di yëg li ñëpp yëg ak jigéen ji toll ci digg maanaa ak maanaa toll ci maanaa war a sëyi daal di yëg li ñëpp yëg ñaar ñooñu bu fekkee ne lislaam wutul miir wala aw dig wala ab ñag moom jaarale seen diggante ñoom ñaar boo may tuut rek day mel nañ mboob ak ay xal fuñ bokk daje rek bu ngelaw amee rek tàkk-tàkk dana daal di am fasaas moo tax lislaam day moytuloo góor muy xool jigéen di ca bànneexu qul lil mu'minin waxut lil muslimin lil mu'minin ñi gëm yàlla nee leen nañu sajji sajji seen gis bi yaxuddu min absar yàlla waxut yaxuddu absaarahum de kon mu métti waaye yaxuddu min absaarihim maanaam bu la yàlla natoo nga xool da ngay sëgg da ngay sëgg nga sajji wàcce gis bi bañ ne xaaj ji noonu rek di xool di seetantal ndax boo nee xaaj ji day mel ne ku jël ab kaani teg ci aw làmmiñam naan maanaa du wex déedéet yàlla ni mu bindee góor mooy fu mu nee jàkk jigéen di xool dégg nga ma ta sa jur abisam faaw mu am lu mu yëg loolu yàlla moo ko bind nit moo xam da ngaa doon ku baax moo xam doonoo ku baax loolu ñoo ci bokku atti ñoom ñaar moo tax yonent yàlla yuusuf nee na yàlla jigéen ñi seen wax ji bari na lool kenn ku ne mi ngi may sàkk wa illaa tasrif anni kaydahunna soo ma dëddalewut ak ñoom asbu ilayhinna daay jeng jëm ci ñoom damay jeng jëm ci ñoom loolu ab yonante ko doon wax yonent yàlla yuusuf ba ko jigéen ñi ne hayta laka defaru sañsewu ba mel na nga xamee ne maanaam kuy séq ak sa borom kër noona lay mel ba pare ne ko hayta laka di jigéen ju rafet nekk ci ab pale borom këram di ab buur mu wax ne Yuusuf Yuusuf nekk ci digg ci digg dooleem ne ko hay talak mu ne ko maadallah yàlla tere may tabbi ci bàkkaarum yàlla waaye nag daa daw de nekku fa naan maanaam fii laay toog naa dee dafa daw dafa daw mu di ko dàq loolu mooy daw njaaloo wastabaqal baaba ñu njëkkante ñoom ñaar buntu ba wa alfa ya sayyidaha la dal baabi ñu fekk seen dégg nga sayyidaha gis yàlla ni maandoo neewut sayyidahuma ndax maanaam Yuusuf du ab jaam waaye wa alfa yaa sayyidaha ndaw si fekk borom këram ba ca buntu ba gis nga jigéen ji bi mu ko bëggee jàpp ngir tàbbal ko ci bàkkaarum njaalo ba mu sotti wut itam da koo ëpp coow moo la ëpp coow gën laa mën a wax te li muy wax du kenn du ko mën a daanak maa jazaa'u man araada bi ahlika suu'an illaa an yusjana aw adaabun alim lenn wërtan doon payuk koo xam ne da doon wuta seek sa soxna lu may xanaa ñu duma ko mbaa ñu tëj ko mu dem dungu siin Yuusuf ne lan hiya raawadatnii an nafsi man daal lu mën a xew ma ma doon sàkku xam nga boo nekkee ci dëgg say wax du bari hiya raawadatnii an nafsi waaye foofu li la xam li la li ma tax xam rek mooy xoolal kooku ni mu toll waaye bi nga xamee ne bëgg naa mucc dafa daw léegi nii nag jamono yi ñu toll nag moom lépp loo xam ne daana tàbbal nit ci ak mooy yàlla daa gën a tasaaroo daa gën a yaatu dafa gën a tasaaroo dafa gën a yaatu tey la jigéen ñi gën a bari li ñuy wax provoqué bi tey la gën a yaatu dégg nga tey la gën a yaatu buntu yi nga xam ne njaaroo mën na caa jaare ngir am tey la gën a yaatu sunu jaf sunu jollo si yi ñu yor nii portable yi ñu yor nii dégg nga ma mag ña xamuñu ko woon démb mujtamaat yu bari xamuñu ko woon démb tey jii da nga koy yor yàlla mi amul kumpa xam ne ne addinaa nekk ci biir lii addina bu fekkee ragaloo yàlla sa borom subhanahu wa taala man ngaa nekk ci benn ruq boo xam ne la nga fa nekk lépp lépp njaalo la la nga fa nekk lépp njaalo la ndax benn waliyaasu billahi taala seytaane dugal na la ci foo xam ne si dangaa defee ne maanaa njaalo waaye fekk ne daanaka atteb ku njaalo nga yor tubaab yi nga xam ne si ñoom dañoo bono bono bono bon ba dégg nga maanaam bokk bon dégg nga ma yenu bon dégg nga ma ànd ak bon di dem nga xam ne ñoom bon dong mooy seen yitte ñooñu moom dañoo fexe dañoo bëgg maanaam mujtamaat islami yàqu rawat na waxambaane yi duñ am duñ am duñ am solo jamono ji léegi daana waxambaane yi amatuñ solo koo xam ne laataa ngay takk soxna daanaka xaw ngaa yàq sa bopp ba nga xam ne boo takkee soxna itam doo ca ma tus nga ci mënut toos nga ca mënut ndaxte yàq nga sa bopp alxuraan dane maanaa ndox yi buñ ko tuur ca àll ba ndox yi buñ ko tuur ca àll ba dégg nga muxsiniina xayra musaafixiin buñ jël ndox yi di ko tuur ca àll ba nit toog na ci ab barab di tuur ndoxum boppam te ndox moom muy tuur noonu am na fa ko yàlla sa borom dégg nga waajaloon mu war faa tuuru waaye defut loolu su ko defee nag na muy demee rek mooy daanaka bunt yi tey jii dafa ubbeeku ci façon boo xam ne jollosu yi képp koo xam ne fi moytuwoo leen alxuraanul karim day wax ne yàlla lam na toowoon ñenn ci saxaaba yi nga xam daa am genn aj goo xam dañoo aj ba àgg rek dégg nga xët yi di naaw di teg seen wet te ko xas ko xas ko xas armal moom lépp lu ñu rëbb doo ko laal borom bi nee na la yabluwannakumullah yàlla dana leen natoo bi shay'in min as-saydi nga xam ne tanaaluhu aydikum booy def nii di ko jàpp xëti mu dox ba sawet xëti mu dox ba ci sawet boo defee nii tanaaluhu aydikum boo saanee sab xeej mu dal ko wari ma xukum foofu lu sës yàlla moo leen ko nattoo lu tax li ya'lama allah man yaxaafuhu bil ghaybi yàlla moo bëgg a xam kan moo ko ragal ci kumpa jo portable yi itam yàlla moo nu ko nattoo portable yi moo nu ko nattoo ndax ay xéewal mi ngi ci biir ay njëriñ mi ngi ci biir am jàngale ngi ci biir waaye da gis koo xam ne si tey jii da ciy jàngale ba yàgg jigéen daal di koy yónnee avocat moom itam mën naa am sax mu xaw a fàtte ndax ndaxte seytaane boo lay jàpp dëgg dëgg dëgg day fàtteloo li ngay def doo doo ko doo ko contrôler sax bu ko defee nga nekk fay tontonteeg moom far wax jeg far soppi ko far benn yoon mën naa am sax sa wax yooyu ñu ngi ko téye far benn yoon yàlla rek xam moo tax dama ne lii nañ ko moytu. mooy nañ ko moytu ay waxambaane lañ dañoo toll ci suñ digg doole boole ko ak nag di ñaan suñu borom yàlla subhanahu wa taala nañ ko moytu tey ñaan yàlla sa borom subhanahu wa taala jigéen ñi léegi dañoo xuuse barki démb boo njaay maa ngi li xam xamuñu sax daanaka jenn jenn jenn jenn jenn yii ñuy def nga xam ne bu damay bañ mu leer loolu waaye waaye tey tey de bu bu fekkee dañoo am kuñ maye yu mel noonu nit ñi kii naan naan yow de la kii jenn waaye barki démb bu so ma tii la ma naroon a def laa la wax nii xoolal loolu sëñ bi lan laa séq ak moom ci kaw suus ba maytee nga xam yëgalu ko yaramam sax yëgalu yëgalu yaramam sax moom moom xamul li muy def lu mu doon ma gis nga moytu leen jigéen ñi maa ngi leen koy wax di leen ko waxaat moytu leen jigéen ñi moytu leen jigéen ñi ah baax na école yi moom waxuma ay waxam ndax daa foofu daa yàqu waaw sëñ bi yow yaa ngi taxaw tiim ay jigéen ñooy jàngal ñoo xam ne fi ñi liñ sol fii la toll fii waaye yow li nga naan da nga expliqué loo expliqué génnoo ci classe boo dem jëm jëm ñibbi expliqué yow ah. xam nga affaire yi sëñ man lu jamono yi ñu toll nii ay auzu billahi min sala fii moom fi nekkee man dama fi yàgg ndaxte ah ah yow ko man ala kulli xaal kenn ku ne yaa xam sa xaala maanaa waaye daal yëf yi daal doy na waar lool lool lool ba jegi dee li ci gën a yéem mooy jigéen ñi dañ dañ laa dañ lay ñeme dañuy ñëw di wax ak yow dégg nga ma muuru seen bopp yi seen yaram waa ngay feeñ ba pare leen sax ñu téye la far benn yoon man fii ci mbedd mi ngay gis ay góor yu dàq ay jigéen sëñ bi ñàkk fu moom ñàkk bopp foofu la tàmbalee ah gis nga dafa nit ki daa war a am man waxuma lislaam de waaye bopp sax da nga ko war a am da nga war a am bopp waaye di dàqante ay jigéen yi ñàkk jom dégg nga loolu da nga bàyyi nit day fegu wala yaasu billahi taala lu may to seetaan dugal ci ay biir da ngay fegu te yàlla rek tax yàlla dimbale la ci nag dégg nga man waxuma nag wax waxin woo xam ne day day mel ne man dama dama dama dama dama sell déedéet waxuma loolu de man waxuma loolu waaye li lislaam bëgg laa wax nii. nañ nañ moytu waxambaane wu ci moytuwul ji ñu tàbbal la ndungu seen léegi nga xam sa problème borom bi nee na azzaaniyatu wa zaani fajlidu kulla waaxidi minhumaa mi'ata jalda téeméeri yar téeméeri yar góor ga daana wax ne diw muuyoo kër jigéen ña mag ñi dañ daan ay kees dañuy am kees ñun suñ mag ñi sax ñoo ñu gën a kii ay kees lañ am kees kër jigéen ña ak kees kër ma loolu xam nga kañ la fi xew waaye xool suñ kër yi léegi kër yi da ngay dugg rek jàkkaaroo jigéen ñi te bu njëkk maanaa mbañ gàcce mooy dox sa diggante kër gi da ngay tax ci mbañ gàcce ga jigéen ju defaru daal di defaru ba nga ba bañ ne ah am na kuy asalaamaaleykum boo ko tey góor rek ñoom dañuy daal di kaw defar dugg ci biir léegi waaye tey ji da ngay dugg rek ne sarax rek jàkkaaroo ñëpp for benn yoon rawatina jigéen ju toll ci digg dooleem dégg nga maanaa di sangu ji naan day tëñu xama tëñu tëñu lañ koy wax xama xoolal loolu xoolal loolu defe nga ne wodd wodd rek la def woddu ne day sangu ji te waxambaane wu toll ci diggam yi ci biir kër gi loolu kay lu xew moom moom moo ko def moo lu ma kaw moo ko def ah golo ci suufu garab benn yéeg na ba àggal waa wala mi ngi waaj a yéeg dama ne golo ci suuf garab benn yéeg na ba àggal wala ma ngi waaj a yéeg noonu la yàlla bindee sunu borom yàlla waa kër yonente bi sallallahu alayhi di ay soxnaam la wax ne yii melu ne melu leen na yeneen jigéen ñi bu ngeen ragalee yàlla daane leen fala taxda'na bil qawli bu leen bu leen di di di di di di di damm seen kaddu yi di ko neexal su ngeen ko defee rek fa yatuma alladi fi qalbihi maradun koo xam ne xol bi maanaam maradu shahwa da caa nekk koo xol ba léegi mu daal tam am xamim di yor waa kër yéen doon de soxnaam yi lay wax de saxaaba yi mu ne leen su ngeen amee yitte ju ngeen yittewoo ci biir kër kër jigéen ñi kër jigéen ñi am lu ngeen fa soxla na ngeen leen ko laaj te fekk seen diggante ak ñoom am mat maanaam xijaab moo fa jaar yonente bi la wax ay soxnaam saxaaba yi yonente bi doon yar mu ne leen wa ida saaltumuhunna mataan fasaluhunna daan dalikum atharu li qulubikum wa qulubihinna lii ma wax moo gën a laab ci seen xol yi yéen saxaaba yi yéen góor ñi ak jigéen ñi waaw kay jamono boo wax yi wàcc léeg-léeg seetaan am ñu mu tàbbal ci bàkkaar yi wala yaasu billaahi taala moo tax jigéen moom lislaam daa tere ngay wéet ak moom su ngeen wéetee seytaane leen ñetteel dégg nga te wéet gi ñu bëri ba dañ koy dañ ko xaw rus léegi bu ñu nekkee ci ay kër yeeg yu mel noonu waaye léegi ñu ngi wéet ak ñoom ci portable yi waaw ñu ngi wéet ak ñoom ci portable yi yàlla ñu yàlla sa borom musal borom bi nee na wala taxudukum bihimaa ra'fa maanaam bu ngeen leen dee duma ñoom ñaar ñooñu noonu bu leen am genn ñeewante fii diinillah ci diine yàlla ji bu fekkee ne gëm ngeen yàlla gëm bis bu mujj ba na ngeen ma dumaal ñaar ñooñu te bu leen leen ñeewante bu leen leen yërëm kuñ war a opérer kenn du ko yërëm ba naan kenn du ko opérer dañ koy opérer dagg ko dégg nga kenn du wax ne ah kii kat dañ ko yërëm bëggoon nañ ko opérer sax waaye dañ ko yërëm déedéet te loolu jaamam dong lañ ko lañ ko bëggal moo tax sa doom boo demoon ñu naan dañ koy opérer ji da ngay ñaanlu dong naan ñaanal leen ko mucc waaye doo wax ne déedéet opérer doo ko wax suñu borom yàlla itam nee na kii moom gannaaw nga xam ne daa teggi yoon waa jaarlu woon su boobaa na ngeen ma ko dumaal te bu leen ma ko yërëmal borom bi nee na buñ koy duma itam ñoom ñaar ñooñu duma yi ñu leen di duma na am mbooloo ñëw ñoo xam ne ci jigëm yàlla lañ bokk fekke ko ah wala shahad na fekke adabahuma duma yi leen di juma ñoom ñaar taifa ab kuréel boo xam ne minal mu'minin ci gëm yàlla la ñuy bokk ñu fekke ko maanaam ñu ne waaja ca dañ ko doon dañ ko doon dóor ca penc ma waaw dañ ko doon dóor ca penc ma léegi est ce que loolu ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy appliqué ci suñu su réew yi réew julli ñu appliqué wuñ ko appliqué kenn appliqué ko fi ah moo tax daanaka fi mu toll gis nga ko nee nañ alxuraan la ñuy la ñuy la ñuy dund dund ñu alxuraan ju ju mat de alxuraan ju mat dunduñu ko de ñu ngi dund alxuraan naam waaye dunduñu ju mat de ju mat ji moom dunduñu ko moom te itam ndax mas ngeen a gis kenn ku taxaw ne maanaam lii di alxuraan di ko wax ñu koy jàng suba ngoon imam ji di ko jàng sax leen nañ fexe ba ba di ko appliqué su réew yi loolu boo ko fi dañu war di jihadis lañ lay wooy ko dox soxnaan dañoo bëgg yàlla ay atteem ñu mun ñu doxal ko ci réew mi te yàlla moo bind jaam ñi moom leen gën leen a xam lam atte ñu indi yeneen atte jëlee ko ca bitti indi ko di ko appliqué ku ku jalgati ak yooyu ñu daj sa kaw waliyashhad adabahuma taifatu min almuminin li may waxaat fii mooy ki njaaloo fekk maanaa daa am soxna wala daa am jëkkër kooku moom kenn du ko lan kenn du ko dóor kooku dañ koy rey kooka dañ koy rey dañ koy sànni ay xeer bam dee loolu la ci lislaam santaane kooka dañ koy rey maanaa laaya ja jàngoon nañ ko ba mokkaloon ko yàlla daal di koy nasax a shaykhu wa shaykhatu ida zanaya farjumuhuma albatta nakaala min allah wallahu azur ak lii alquran la woon lii alquran la woon dañ koo nasax kon rajmu bi moom mi ngi fi ba léegi nii salaa sallam def na ko omar def na ko ci jamono mos na ko wax sax daan ne jàng nañ fi laay rajmu nag bu bu jamono ñëw mukk ngeen naan ngeen naan maanaam nekku ci alquran te am na ñu koy wax naan fi rajmu waaw nekku ci alquran nekkul ci xawaay nekk na ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wasallam beneen bi itam dañ lay tumuraankeel nga dem am at moo xam doo nekk ci dëkk bi ki njaaloo loolu su naa ko indi ki njaaloo des na ko duma téeméer yar bu ñu noppee daal di koy génn dëkk bi mu dem maanaam ci feneen am fa am at door a ñëwaat ci dëkk bi ndax kooku maanaam ab ab dafa yàqu ku yàqu la mi ngi mel ne yaram yaramu doomu aadama bu ci amee benn cër boo xam ne si dégg nga ma dafa xaw a daa daa xaw a kii xaw am nu mel noonu te buñ ko bàyyee mu yàq yeneen cër yi nuñ koy def dañ koy dagg dagg lañ koy def kii dafa yàqu ci biir mu tamaay te buñ ko fi bàyyee mu yàq yàqaate yàq doomi julli ñi dem rek am na ñoo xam ne si programme moom la yor mu yàq doomi julli ñi dem rek ah te loolu ñuy def noonu am du amuñu amuñu amuñu yéene def ko seen rakk yi seen rakk yi ku njaalo koy njaalo sa rakk bu fekkee da nga njaalo lu tax ngay def rakk rakk jaamur yi nga leen njaalo lu tax ngay dem ci bàjjani jaamur yi lu tax ngay dem ci yaayi jaamur yi te am yaay am am salaatal moo tax waxambaane mas naa ñëw ci moom daa ne ko mur nii bisina ko xam fu mu jógee dama bëgg nga digal ma may njaaloo saxaaba yi dem ban na koo kii mu ne déet bàyyi leen bàyyi leen daa ne ko ndax loolu noonu bëgg nga ñu ko ko def ci sa yaay mu ne ko déedéet mu ne ko yaay jàmbur yi nag sa sa doom bu jigéen mu ne ko déedéet mu ne ko doom bu jigéen nag ndeysaan mu ne xaaj ji di xoolee mu jël loxoom daa ne yàlla yàlla na nga laabal xolam te yàlla na ko yàlla na nga sëngee am payam nee na baa fa jógee la sama xel génn ci loolu xoolal jamono yent yàlla Muhammad ndé nga waxambaane wax loolu ko ak suñu jamono ji wallahi waxambaane yi ba dañoo ma dañoo mat a yërëm tàmm lekk sama bopp maanaam yërëm ndax li fi nekk ci yu yàq dafa bëri bëri bëri goo xam ne sii ku suñ borom yàlla dimbalewut teg la loxo da ngay yàqu laa wax dégg nga maa la wax loolu ku yàlla dimbalewut du affaire affaire njàmbaar ak mën a jàng alxuraan ju rafet ak mën a yooyu yëpp yàlla lay dimbale daw ak nag di ak di moytu ak di moytu ak di moytu sa kem kattan waaye yooyu jokkoo bi jokkoo boo xam ne bi jokkoo suba juba ngoon jokkoo yi dem rek jokkoo yi dem rek ah ah waaye sëñ bi yooyu dañ ko seetaat borom bi subhanahu wa taala nee na azzaani njaalokat bu góor bi laa yankixu du jote mooy laa yata'u du séq ak lu may njaalokat bu jigéen ne moom njaalo kot bu jigéen ne moom dong mooy nangu mu séq ak moom waaye jigéen joo xam du njaalo kot boo jugee ca àll ba dim njaalo kot du la may boppam azzaani njaalo kot bu góor bi laa yankixu du jote mooy laa yata'u lu may xanaa xanaa zaaniya njaalo kot bu jigéen ne moom moo koy fekk si ci lim nam wala koo xam ne mushrika la moom gëmul yàlla sax far benn yoon moom da abokkaale kat yàlla boo xam ne si diine ji yoon nekku ci moom xamu ci dara moom moom moom gëmul diine daal ci gàttal wa zaaniyatu njaalakor bu jigéen bi itam laa yankixuhaa du jotee ak moom illa zaanin lu may njaalakor bu góor ne moom njaalakor bu jigéen njaalakor bu góoree séq ak moom aw mushrik wala bokkaale katub yàlla boo xam ne si moom tënkuwut ci att yàlla yi borom bi ne wa xurrima araamal lañ daalika njaalo goog yi dañ ko araamal alal muminin ñi gëm yàlla dañoo araamal ci ñoom ñuy njaalo loolu am pirin la am na benn pirin moo xam day wax ne laa yankixu du laa yaqidu mooy du fas moo tax fii ay wax ju bëree bëree bëri moo fi nekk joxaan damay damay bañ su ma ci duggee boo moytul tafsir bi fi lay jeexee waaye ala kulli xaalin bu ngeen demee ci adwaul bayan Muhammad Lamin Shinqiti wax na fii wax ju am solo ju yaatoo yaatoo yaatu ndax nee na su fekkee dañ koo tekkee laa yankixu bi maanaa laa yaqidu loola kon gàllankoor bi mooy aw mushrika ji mooy jafe-jafe bi ndax kon lim ñuy jox mooy njaalokat bu jigéen maanaam bu góor laa bëgg a wax duñ ko saña may lu may njaalokat bu jigéen aw mushrika jooju ne na fi la fi la fi la gag bi nekk ndax njaalokat boo xam ne bu góor la dib julit amut sañ-sañu di di takk koo xam ne mushrika la bokkaale katub yàlla bu jigéen ndax alxuraan ko tere mooy foofu ne nañ jafe foofu foofu lay dégg loolu moo tax kon maanaa li ñuy wax fii moo di njaalokat bi nga xam ne daal bu góor la ka koy jébbal boppam di ko yombalal boppam njaalokat bu jigéen lay doon ne moom wala muy mushrika koo xam ne maanaam yoonam nekkul ci lislaam njaalokat bu góor bi itam nag dégg nga njaalokat bu jigéen bi laa bëgg wax moom tam ka koy yombalal boppam mooy zanin wa xurrima dalika ala al muminin aw mushrik mu des nag ndax ndax ndax dagan na njaalo kot boo xam ne si dégg nga xam nga ne kii am na doom ci njaalo ndax dagan na nga dem takki ko maanaam yëg nga ne kii njaaloo na ba am doom waaye ndax dagan na nga dem takki ko foofu fuqahaawul arbaa ñett ñi ñoom nee ñu loolu mën naa nekk su fekkee ne am nga la wóor ci ne tuub na tuub bu wéer a wéer a wéer a wéer mu des nag nan la ñuy xamee ne tuub na lan moo nuy xamal ne tuub na tuub bu wéer a wéer a wéer foofu itam jeneen wax ne kaa dafa ju bëri lool ñii naan dañ koy woowaat sàkkuwaat ci moom lu mel noona ba xam dana nangoom déet bu nangoon doo xam ne tuub waaw léegi mën naa amu tuuboon tuub gu sell ñu sàkkuwaat ci moom loolu seetaan mënaat ko di ah ala kulli xaalin mu des nag koo xam ne yàlla da koo nattu moom fii moom masali fi nekk dafa bëri lool mooy koo xam ne moom amoon na soxna far yàlla nattu ko ca soxna sax loola far dal ko ndax soxna sa day daal teqali ko moom fa saasa ñu ne aha kay mën naa téye soxna sa bu ko soobee nag mën naa teqali ko ak moom waaye su ko téye itam su boobaa du doon lu aay ci moom. beneen bi itam fuqahaa yi li ñu wax ci ne ki njaaloo te am ak tuub gu sell nga dem takki ko takk nga ko takk mën naa am mu daal di koy aar moom mu aar ko waaye xel nag du dal foofu moom. ndax ndegam ne ndegam xamoon nañ ne moom am njaalookat bu jigéen la moom nga takk ko li ci gën a bëri sa xel du dal ah bo surtout bo bo bo kooku gis muy wax rek da nga yaakaar ne ba léegi loolu jëndiku ci moom waaw sa xel mu dal xel mu dal moom ngir mu mën a am mooy da ngay dem takk koo xam ne si muhsanaat gayra musaafihaat wala mutaxidaati axdaan koo xam ne amul ay wudu ami xarit wala li li li gën a yéeme ji mu jamono maa sama sama xarit bu jigéen sama xarit bu jigéen mooy la ah da koo takk mu ne takku waay sa xarit bu jigéen la fa déedéet ji xarit jigéen kenn du xaritoo moom sëñ bi ah jigéen kenn du xaritoo moom sëñ bi ah yàlla sama xarit bu jigéen bari jaaxaan kay bari jaaxaan way xarit bu jigéen foo ko teg foo ko teg tegu fenn nga ko tegut ah fenn nga ko tegut ah lo ay sama soppe la yëpp dara dara wóoru ci dara wóoru ci wala moo jamono ji sëñ bi yàlla yàlla musal wa ji sëñ bi képp kuy julli wala képp kuy ay maanaam sëñ bi kay bu dëkk ci ñaan yàlla saa borom subhanahu wa taala wallahi alladi laa ilaha gayruhu laa wax lii may wax nii maa ngi koy wax ci turu waxambaat yi yëpp maanaam nit ki day ñaan amul fenn fu nit maanaam toll ba tax ñu ne mucc na te saytaane kim gën a maanaam ciblé gën koo teg bët mooy kuy jéem a jub ndaw luy jéem a jub ndaw lu jéem a naan day fonk waxtu julleeg julli juróom ndaw lu naan maanaam te te yonent yàlla Muhammad jàngal na ne ko ku ci mën a takk tox na takkat soxna ko ku ci mënul dangalam woo wuuru teg ko wuuru loolu daa wuur loolu wuur loolu wuur takkil soxna loolu wañu wala dara soo ko mënee laa wax ma ma maanaam soo ko soo ko mënee soo ko mënee buñ la ko jàppandalee takkil soxna soo ko mënul del woor Muhammad la ko digal sallallahu alayhi wa sallam moo la ko digal. lu tax ngir ngir doo tabbi ci tabbi ci bàkkaar bi wala yaasu billahi taala yàlla nañu yàlla sa borom musal yàlla nañu yàlla sa borom musal ci ak sun sun njaboot yeeg yëpp rek yàlla na yàlla musal leen ci bàkkaarum jaaro wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin